الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد بعثنا في كل أمة رسول في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إخوة الإيمان لقد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والتواغيت كثيرون ورؤساؤهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راضٍ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من عالم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله يقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفسام لها والله سميع عليم بقيت يا الله تبارك وتعالى ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ragal yàlla ak topp yàlla ñu ngi fàttali suñu bopp di fàttali mbokk yi ne borom bi tabaraka wa taala wax na ci saar bu tudd naxl mooy saar bi mu tuddee yamb yi ca aaya fanweer ak juróom benn borom bi nañu xeet yépp yónnee naa leen yonent amul benn nation amul benn peuple amul benn xeet lu dul ab yonent yàlla yónni na ko wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet lu dul yàlla yónnee na leen ndaw yow yàlla ndaw loolu lu tax nga yónnee ko nit ñi mu ne ani abudullaha pour ñu kennal yàlla pour ñu jaamu yàlla kese amul leneen ani abudullah pour ñu jaamu yàlla kennal ko wajtanibu taaxuut ñu moytu xërëm ndeke yonent yi li tax yàlla yónni leen ñaari mooy seen mission ñaari mbir ñu fexe nit ñi ñu kennal yàlla waaye ñu fexe nit ñi ñu sori xërëm tey nag li tax xel yi lëndëm mooy boo waxee xërëm am ku jàpp ne mooy xeer wu ñuy jaamu ci la bokk dëgg la am keneen ku jàpp ne benn estati bu ñuy yett la samp ko di ko wër ci la bokk dëgg la am keneen ku jàpp ne mooy ak ëkk gu ñuy jaamu ci la bokk doomu aadama lépp lu mu jaamu lu dul yàlla loolu xërëm la ci moom daf ko war a bàyyi sa jaamu yàlla du mën a tudd jaamu yàlla lu dul nga kennal yàlla tabaraka wa taala nga am tawxid mboolem yonent yi seen mission ci fenn lañ ko dëppoo mooy kennal yàlla wéetal ko bañ koo utal dendandoo bañ ko dendale ak xërëm mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yàlla dafa farataal ci jaamam yi weddi xërëm farataal jullit du mun a nekk jullit lu dul mu weddi xërëm su weddee xërëm lu muy def mu gëm yàlla tabaraka wa taala fekk weddi woo xërëm rek amagoo gëm yàlla te lépp lu lay xañ ngëm mi ngi lay yàqal sa diine te lépp lu la yàqal sa diine mu ngi la yóbbu safara kon sa diine lépp lu koy yàq war nga ko xam am na ci ñun léeg-léeg nga dajee kenn ci mbedd mu takk lam nga ni ko lam bi pour lan la mu ne dafa may dindil cat lam boobu xërëm la ci moom fekk dindiwu ko du tàllal yàlla mukk ni allahuma yàlla may ko dara ndax loxo bu am salte yàlla du ko nangu kenn ci ñun sa doom bu takkoon ay dem àll ñëw jib la fekk yaa ngi sol yére yu weex ci kaw ba ci suuf mu jib la ak noonu mu taqee lay wax téye leen ko bu ma jege téye leen ko naka la jullit di taqe sobe bu gën a yàlla allahumma fekk sa loxo yi mi ngi taq yàlla du la nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu nettali hadis bu doy waar ci arbauna nawawi mu ngi gis benn waaye mi ngi ñaan yàlla yëkkati loxo yi ba poqataan yi feeñ mi ngi toog ci suuf à genou teg ay oomam ci suuf yëkkati loxo yi ci kaw sëngam bopp bi yonent bi ne kii na koy ko yàlla di nangu leen kii yàlla du ko nangu ñu ne lu tax mu ne li muy lekk dafa araam gémmiñ guy lekk lu araam xasaw cigarette lu muy ñaanee yàlla yàlla di ko may loxo yu taq lu araam ñaane yàlla yàlla du ko may yonent bi ne kii li muy lekk dafa xaraam li mu sol dafa xaraam fi mu toog dafa xaraam li ko wër dafa xaraam mu ne fa anna yustajaabu lahu naka la ko yàlla di nangu leen jullit lépp lu lay tere egg ci yàlla danga ko war daw mbokk yi Ibnul Qayyim kenn la ci borom daara yi nee na maana taaxut lan mooy xërëm mu ne bu ngeen bëggee xam xërëm mooy lan mu ne maa tajaawaza bihi l abdu hadduhu mooy jaam bi fi mu war a yem ci benn mbir mu ëppal ci léeg-léeg nga dégg ko ne damay ziare ji bàmmeel lu baax nga def waaye mu dem ba ci bàmmeel yi simmi dàll yi raam yegg si ci bàmmeel bi sujjóot xërëm la ndax ëppal na ci loolu loolu mu def dafa xaram wala au lieu mu ñaanal borom bàmmeel bi mu ñaan bàmmeel bi loolu xërëm la léeg-léeg nga gis ku ne waat mbir mi dama koy def mu nekk lu rafet damay jokk mbokk damay ziara ji diw ba mu demee ba seen diw rek mu simmi mbax ne simmi ay dalam waax ci suuf xërëm a ngokk maa tajaawaza bihi l abdu xadduhu fépp fi nga war a yem boo ko ëppalee rek dugg nga ci xërëm nañ def attention bokkaale lu sew la yenent bi nee na ashirk axfa min dabibi namla zulumatu sawda ala hajarati sawda fi zulumati leyl mu ne lëndëm bokkaale dafa sew mu ngi mel ne xorondam bu ñuul mooy mbelantaan bu ñuul bu mag boobu di dox ci xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñu ne na nga xool ndax di nga gis tànk yi ñett yu ñuul ñoo am ndax di nga gis lënd tànk yi dañ tamit ne na bokkaale noonu la sewee te day tere nit dugg aljanna te xërëm mooy fépp foo war a yem boo burlee min maabudin ci lu ñuy jaamu li ñu war a jaamu nga ëppal ci defal ko nit xërëm a ngoo aw matbuin wala ku ñuy topp nga ëppal ci topp gi xërëm a ngoog aw mutaa wala ku ñuy roy nga ëppal ci roy gi xërëm a ngoog si ngeen kon xeetu xërëm yi bi mu koy firi moom borom daara jooju lu mu wax ci jaamu yàlla lay nekk ci ku ñuy topp ci ku ñuy roy mu ne wa tawaaxitu kasiruun xërëm yi nag dañoo bari biñ ko laajee ñaata la mu ne seen principal njiit yi juróom lañ wara so waru asaahum mu ne xam so njiit yi njiitu xërëm yi juróom lañ kenn ku ñu nekk dangaa yor daara di ci woote ñoom xërëm yooyu ñu ne ku ci njëkk mu ne iblis laanahullah iblis mi yàlla sori di yërmande mu ne mooy numéro un ci xërëm yi képp ku topp ci ñun iblis yow jaamukatu xërëm nga way nekkoo jaamukatu yàlla iblis lu muy tekki mooy borom mujj bu bon fi mu mujj moo bon jaamu na yàlla lu kenn deful waaye keroog ba ko yàlla joxe ndigal ci su jootal aadama mu lànk keroog la yàqal ba ñu laajee yàlla si iblis bi lu ko yàqal mu ne ñaari bakkaar la rek yàqule aba wastakbara wa kaana min alkafirin dafa lànk ñu ne ñaareel yàlla mu ne dafa rëy wi ñaari bakkaar lànkal yàlla ku yàlla ne defal nga lànk ku yàlla ne defal nga rëy ñaar yii moo tax iblis yàqule na ko ab julit mooy taliku balaa ko yàqule ñu ne ko ñaareel bi ci xërëm yi kan la mu ne wa man ubida wa huwa raadin képp ku nangu jaamu la nga kontaan ci ba ñu nga dégg léegi sëñ bi yàlla la mooy borom jaam yi diw yàlla la muy dund di ko dégg weddiwu ko kooku xërëm la ak ku mu mun a doon képp ku dégg ñu wax la wax jooju ci saase woowal nit ñi dénonceel baat bi balaa muy ëpp ay seconde gis nga Isa ba ko gars yi ne yàlla nga yow man xiyaam yàlla ne su ma ko taxawalee dama naan ko Isa yow lañ doon jaaw mu ne la yàlla nga mu ne yàlla su ma ko nangoo xam nga su ma ko nanguwulee xam nga man yàlla waxuma ñii lu dul li ma waxoon ba may dund biñ ma reyee sama responsabilité wàcc na nekkuma fa woon yow yaa fa nekkoon dégagé les responsabilités kon yow mi dund nga dégg ñi la wër naan la yàlla dégagé sa responsabilité waxal ak ñoom na la jaral nga dem ci rajo yi télé yi wax leen ne duma yàlla sow fenk dara du xew montre bi nga takkoon sax du taxaw buñ ko tekkee ci say loxo yàlla mooy yàlla képp ku ñu jaamu nga nangu jaamu gi ñu la jaamu yow xëram na mooy ñaareel yal nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen wërsëgal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ñettelu ci tomb yooyu ñii leeral kan mooy xërëm ginnaaw iblis ak ku ñu jaamu nga nangu ñetteel mooy waman daan naas ila ibadati nafsihi képp ko wax nit ñi kaay leen ngeen jaamu ma yow xërëm la képp koo jaam ñu yaakaar ne ci yàlla nga leen jëme nga jëme leen ci sa bopp yow xërëm nga yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fii la ko yàlla mayee ndam mu rëcc cent vingt-quatre mille sahaaba ñoo ko waroon amu ci kenn ci ñoom ku musa tarxiis ne ko yow yaay yàlla isa wax nañ ko ko moo tax ba mu yëgee ne am na ci ñoom ñu yaakaar ne kii yàlla la mu daal leen di weddi fa lamma ahassa isa minhum l kufra qaala man ansaari illa allah borom bi sax mu ne ñii wax ne isa yàlla la ñooñu ay yéeféer lañu laqad kafara alladina qaalu inna allah thalith salaasa ñi ne Uzayru yàlla la yàlla leen ne ay yéeféer lañu wa qaalat ilyahud Uzayr ibnu allah ñi ne Uzayru doomu yàlla yàlla mu ne ñooñu ay yéeféer lañ ñi ne Isa doomu yàlla la yàlla mu ne ay yéeféer lañ kon ku wax nit yàlla la yow yéeféer la kooku mën a léegi ñu ne nit yow di diw yàlla la sax réer ku ne man yàlla laa man yàlla laa ay yàlla yi léegi bëri na Sénégal de ñaata yàlla moo fi nekk te yàlla mu ne qul huwa allahu ahad man kenn la léegi ñu ñuy wax ci mel ni gis ay yàlla yàlla yi di football yàlla yi di rap yàlla yi nekk ay musicien yàlla yi nekk ay bër yàlla yi yàlla yàlla ay foo dem gis ay yàlla te yàlla mu ne man kenn la dañ sa daal suñu bopp diine du ko foo diine kenn du ko fooyee ñeenteel wa man iddaa shay'an min aalami al-ghayb képp ku woote dara ci xam kumpa ne man xam naa suba luy xew nawet bii di ñëw nangam tey bi rusul ci Sénégal waxuma la sax nga jàkkaarloo nit face à face mu lay wax dara mais rajo wala téléphone rajo rajo nit nekk ci rajo nga woo ko téléphone mu naa nga waaw yow day génneel sara ndax nangam moo tax sa wërsëg jotoo ci ndax yow day nangam inna li rajo nit di la seetal ci rajo ñaata rajo ngeen di gis ay gisaanekat di wax ñu leen di woo téléphone 24 heures sur 24 téléphone bi du coupé Sénégal ana jullit yi ana ngëm yàlla gi ana islam ana li yonent bi jàngale ne ko ko def yéeféer nga ana alquran bi ñu weddi loo loolu yonent bi ne man ata arrafan aw kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wa fi riwaya la tuqbal lahu salata arbaina yawma muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam ku dem ci gisaane kat ku dem ci gisaane kat seet kat pettaaw kat ab bu xaaba mu wax la dara nga gëm ko yéen yàlla muhammad nee na yow génn nga ci l'islam bi ngay dem rek soo julee 40 jours waxamu la dara yaa ngi dem yegg ko soo julee 40 jours yàlla di ko nangu bi nga demee ba yegg mu wax la nga gëm ko yow génn nga ci lislaam ak ñaata nit ci ñu ko ñoo génn ci lislaam da ngay gis ne nit ñi di dox rek te dañ cëpp ay yëfër la ñu ngi biir safara li leen gën a dugg safara rek mooy dee wallahi azim loolu ku ko gëmul rek yëfër nga parce que yàlla moo ko wax yonent bi dëggal kuy dem ci gisaane kat yëfër la ku dëggal bu xaaba kat weddi nga lislaam ñu ubbi ay antenne nit ñi di woote di leen gisaane ñuy woote ne dañoo xam suba luy xew dañoo xam kumpa loolu tax loo gis ba loolu commencé ba léegi nga gis nit ñi ñu leen di rey bu nekk bëccëg di leen di saam am na ndaw suñu mu doon rey daggate ko ci fukki fan ak ñett la woon ci weer bi fukki fan ak fukki saam ak ñett lañ ko def parce que ki lay seetal lu mu la wax loolu ngay def da nga rey nit saam ko fukki saam ak ñett nga dem jël nit rey ko saam ko fukki saam ak ñett da nga jël nit tàmbal luy bëgg ñaata nit ñooy réer kenn du leen gis ñaata c'est parce que jëlal xolu nit jëlal rasu nit indil ma xolu nit inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla mu ne man qatala nafsan fa ka annama qatala nnaasa jamia ku rey nit benn nit yàlla mu ne rey nga adduna bi yaa wa man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamia yàlla mu ne wa man qatala muminan mutaammidan fa jazauhu jahannam kooku yi bakkan yi yàlla moo leen moom gis nga gunóor yi ñuy gis ñuy naaw amoo droit rey ci benn lu la islam jox ndigal ne la day lone boo ko gisee rey waxuma la nag doomu aadama doomu aadama yàlla sàkk ko wàcce ko ci kaw suuf yoon nga rey doomu aadama ñetti nit ñetti mbir moo tax ñu koy rey ñetti nit ñetti mbir màgget muy njaaloo dañ ko war a rey an nafs bi nafs ku rey nit dañ la war a rey ak al murtad ku génn ci islam dañ la war a rey yàlla léegi nit nit ñi li yàlla wax ñoom ñu ne yàlla dafa soxor te léegi ñoom seen bopp dañuy rey yàlla teg loi ne lii la ñu teg juróomeel ci xërëm yi mooy waman hakama bi gayri ma anzala allah képp ku àtte woo ci lu dul yàlla wàcce fi nga dem àtte ji fo dem nga ci xërëm nañu yëgal islam aw dundin la manhajul haya islam aw dundin la islam téere bi ñuy gis muy alquran ñëw rek pour ñu julli li gën a ruslu tey mooy julli ñu jàpp l'islam julli kese la koor yonee asaka dem makka jàng alquran jeex dafa ne ñoom seen yëre yi ñuy sol sax l'islam bokk dafa ne li ñuy togg sax seen kër yi l'islam bokk dafa ne seen diggante ak seen soxna yi l'islam bokk dafa ne seen liggéeykaay yi l'islam bokk dafa ne seen dund yi l'islam bokk montre bi ngay takk sax l'islam wax na ci noo koy takkee ak foo koy takk dàll bi ngay sol sax l'islam wax na ci yàlla bàyyi ñu dara maa faratna fi kitaabi min shay pour ñu delloowaat suñu bopp yi ñuy gis yu ndaw ndaw ci réew mi xew lu tuuti la wallahi alazim feeg dellu wunu du am jàmm feeg dellu wunu ci yàlla feeg gëmuñu yàlla feeg nanguwuñu yàlla mooy yàlla muhammad la yàlla yónni alquran mooy téere bi jàmm fi am dañuy sonn rek ak ku fi mun toog islam mooy diine yu jàmm nan la tudd l'islam mooy jàmm bañ nga ko ba koy nuyu nit nga di ko asalaamualeykum yàlla na nga am jàmm mu ne la wa aleykum salaam yàlla wàccee ñu jàmm ñu ne duñu dund jàmm ji ba pare ñu ne dañuy am jàmm dañ seetaan mbir duñu am jàmm nag borom bi tabaraka wa taala mu ne la ikraha fi diin قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم borom bi nee na dëgg-dëgg leeral naa diggante dëgg ak fen qad tabayyana rushd min al-ghayy dëgg ak caaxaan leer na bu fan ñëpp teg nañ ci bët mu ne wa man yuminu billahi ku gëm yàlla loolu mooy dëgg kooku de faqad istamsaka bil urwatil usqa jàpp na ci buum gi dul dagg ki gëm yàlla moo jàpp ci buum gi dul dagg buum googu mooy lislaam lan fi saamalahaa du fecceeku mukk borom bi nee na beneen bi mooy nga weddi xërëm yi fa man yakfur bi taaxut nga weddi xërëm mooy juróom yi ñu la waxoon sànq iblis ak ku nangu ñu jaamu ko ak ku woo nit ñi nag ma jaamu ak ku woo ne moom xam na suba luy xew ak ku àtte woo li yàlla wàccewul juróom yi ñooy xërëm yal nañ ci yàlla musal allahumma اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فنتعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة